16 août 2022 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay maa andi ak Boucar Ndour kon maama maa ngi lay siyaare Omar maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di nuyu mbokk Sénégal yëpp rawatina mbokk internet wu Lutte TV Omar ni ñu ko waxee rek tey nekk mardi 16 août 2022 ah, ñuy ndokkale nag suñu mbokk ah, lañ doon féete 15 août muy association ah, di ñaanaat jàmm si Sénégal rek rawatina nag tey dialogue islamo chrétien bi nga xamante ni tey gis nañ ne ngëneel rek la jur si réew mi ngëneel rek la jur ci réew mi Boucar boo xoolee bu feet amee mënuloo xàmmee ndax kii jullite wala wala musulman la parce que nag la plupart sax 15 août fii musulman yi sax ñoo ko gën a farataal ko julliti loolu dafay wane ni am na booloo ak jàppante bu nekk ci suñu biir. suñu làmb daal di ñëw Boucar ci xëtam bu njëkk mu daal di fësal Gris doo ginnaaw bi mu bëriwee ak Balla Gaye numéro 2 ba noppi am ci défaite ñu def seen dernier face to face mu yëkkati ay kàddoom di wax ci défaite bi. wax ci ni nga xamante ne ni noonu la abordé combat am waaye ci critique yi nga xamante ne ni mi ngi faral di jug jëm ci moom waaw ci critique yi nga xamante ni tey mu ngi faral di jóg si moom Omar lii nag yaakaar naa ne bi ñuy face à la moom ak Balla Gaye 2 maanaam tey seen combat bi bi mu jeexee bañ war a dajawaat war a waxtaanaat ku nekk maanaam tey wax li nga xamante ni tey peut-être loolu nga jàpp ne moom nga manqué loolu nga jàpp ne mooy nga jàpp ne maanaam tey mooy li la xañ combat bi waaye dafa mel ne nag Abdou bi nga xamante ni tey la si Moustapha Gueye yëkkati woon ay cadeau doon ko xamal ne daal bu ko soñoon mu bàyyi face dem créer beneen équiram berdaaram moom Gris Bordeaux moom naan wutee gis-gis mooy waral marchandise di ay bëgg-bëggam daal mooy <clears throat> perpétuer li nga xamante ni moo di règne bi gérer Tigre de bi parce que jàpp na ne sax bu demee ba génn Fass rek dafa mel ni kon day trahir Mbaye Gueye parce que Mbaye Gueye am mu def ci moom en tout cas Boucar mën a xew Gris Bordeaux mën naa gunge xale yi ba ci kanam parce que nag lu mën a xew Gris Bordeaux jeexalagul mbër la boo xamante nii bu bëree mu neex bu tuusee mu neex combat yi gën a neex ci at yi Gris daf koy bëre su bërewul sax année yi mi année balance dangay ngay gis ne dafay xaw a ci làmb kon Gris mën naa continuer di pousse ay rakam ñu waxtaan ko def ko fóotum biir néeg parce que écurie Fass seetlu nañ ñu bu dara xewee ñenn ci ñoom foofu noonu ñoom ñooy génn sax di xamal nit ñi que ni am na lu xew ji def ay sorties di def ay sorties waaye ak lu mën a xew rek yaakaar naa ne quatre ans yi toog bëru ko moom bu ko toogaatee moom na a mën a rek na carrière lii liy dëgëral Omar mu mën ko def parce tamit yaakaar naa ne série de défaites yi ko tegalantee rek yaakaar naa ne ak lu mën a xew rek lépp lu fa xew des fois nouvelle lay nekk kon nañ fexe daal ni nga ko waxee rek di def potum biir nekk da si am solo. da ci am solo Boucar Ndour yaakaar naa ne am na ay combat yoo xamante ne ñu ngi koy dégg moom Gris Bordeaux te combat la yoo xamante ne bis bu taxawee combat yu jëmal làmb la combat yuy neexal làmb la. leneen li nga xamante ne ni xew na keroog ci arène nationale ginnaaw bi ñoom Balla Gaye Gris doo bëree ci dimanche bi beneen ba beneen ba ca topp Fils de Balla jàkkaarloo na fa ak Gora Sock mu nekkoon derby pikin Parcelles Parcelles ak Guédiawaye ah. waa Géejawaay nag ñoom am ndam ci kaw waa parcelle encore une fois. dër bi parcelle géej waaye ku ne xam na ne du yomb poulain wu go la woon moom góor ak poulain wu Balla Gaye moom fils de Balla gis nga combat bi sax ah euh, seen patron mën nañu ne dugg nañ si Balla Gaye na si Modou Lo dugg na si wax dem wax dikk waaye ak lu mën a xew rek bañ ñëwee ba si biir stade ba moom góor a soog ak fils de Balla moom fils de Balla daa ñëw rek ne tey moom amul wax jëfa am daan góor a soog si une minute trente deux secondes yaakaar naa ne nag mu nekk lu bettu ñu bëree bëree bëree bëri waaye a moo tax Kampala écrase Gora Sock en une minute 32 secondes. en tout cas Boubacar bu ñu ko jàppalee bu mat mat na mbër nduru na mbër te mbëri na rawatina keroog bi nga xamante ne ni ñëw na ci biir stade bi ñu bëri dañ ko doon jàppee jaaytaar wala mbër boo xamante ne ni mbëru événement la waaye wane na ni moom mbër dëggantaan la li ko firndeel mooy digganteem ak général bu Malika digganteem ak ki nga xamante moom mooy Gora Sock jot nañu jox ko gëddu mbër gi nga xamante ne nii moom la yeeyoo jox ko ñu jox jot nañu jox ko gëddu mbër loolu nag Amar mbër a koy liggéey rek yaay def sa bopp mbër def sa bopp champion fi mu moom lépp lu ñu koy wax rek mooy maanaam tey na góorgóorlu yokk ay entraînement yokku physique yokku koofur parce que mbër sañ-sañ mhm. mbër fit mbër jom mbër fula waaye tamit mbër yaakaar naa ñëw maanaam andi loo xamante te sa adversaire da nga mu mën la mu leer leen kii moom a mën su cadre bëri parce que tey Fils de Balla Gora tey ñu bëri Gora Sock lañ joxoon favori parce que peut si lim gën a lim ko jiitu si làmb ak yu demee noonu ak lim ko di ko mhm. mais maanaam Fils de dafa amoon benn communication boo xamante ni tey ku dul Gora Sock sax da lay jaaxal parce que maanaam gëm-gëm bi muy waxee ne maa la mën gëm-gëm bi muy waxee ne arbitre bu siflee ma du ma la daan la loolu yaakaar naa ne psychologiquement dafay am lu muy def ci mbër loolu euh, gis nañ ko si moom kon yaakaar naa ne li des ci moom la des mooy maanaam tey yokk li ñu naan yokku cere doolu ñeex loolu la des Gora Sock tamit xale la euh, ñàkkagul dara day defarwaat rek yokku cere moom tamit doolu ñeex parce que yaakaar naa ne champion la waaye tamit moom tamit mën nañ ne a handicapé mooy lutte simple bi mu bàyyi woon su mhm. Gora Sock dafa nekkoon ci lutte simple jamono nekk ñëw nekk booy wu ba am tour si lutte simple waaye jékki-jékki rek bàyyi ko peut-être loolu bokk na ci li ko gën a handicapé waaye ak lu mën a xew rek xale la na yokk cere dolli ñeex combat la daal boo xamante ni yaakaar na ne combat bu neex la woon. waa géej waaye bés boobu dañoo fanaanoo jubilé ñu xëy lan demee ñu fanaanoo ay jooy ndax Baye Mandiaye numéro 2 ku ne xam na ne mësta daanu. Mhm. wala boog gëj naa daanu bokk. Mhm. diggante mag Kaaw Gourdin kaw Gourdin daal di koy daan ci une minute une seconde. Mhm. une minute Omar yaakaar na ne. Euh, loolu deux minutes. waaw ci deux minutes une minute deux deux. Euh, une minute la sax ko journal bindi combat bu gaaw a gaaw la sax Omar. waaye ak lu mën a xew rek moom Kaw Gourdin champion la ndaanaan la waaye dafa mel ne nag tey euh, il a mis fin à l'invincibilité de Baye Mandiaye mosul di woon daanu mais Kaw Gourdin tamit ñu bëri dañ koy umbale. parce que dañuy fekkante ci mbapat yi fii ba Gambie ñëw na fa mbapat si mbër la boo xamante ni nag waxam bëriwul cëfar cëfar bëriwul par rapport ak yeneen mbër nga xamante a te joxoo ko cër Omar ñu am ni du du du du como Baye Mandiaye nag xale la day defarwaat rek waaw ni ma koy waxee rek yokk cër dolli ñeex waaye Kaw Gourdin na ko gars yi xel Kaw Gourdin na ko gars yi bàyyi xel Boucar Ndour waaye journée yi nga xamante ne nii lamb war na ko bàyyi xel bu baax a baax mooy journée yi nga xamante ne Gaston production tëgg na ko diggante Forza ak Franc Sokh ak Marley mu nekk ay choc yoo xamante ne nii ay choc yu am solo la pour saison bu déwén. ay choc yu am solo Omar combat yu neex ñoo taxaw jamono jii nii Forza Franc moom loolu combat la ah combat jànq combat boo xamante ni yaakaar naa ne moom. Euh, ñaari mbër dinañ gën a a wane seen bopp parce que Forza depuis loolu soo waxee mu ne dañ ma ragal ñem wuñ foo waxee mu amul lu may tiit si mbër kon combat bu taxaw moom combat bu neex la waaye ñaar ñii nii tey combat rasa lañ def parce que ñaar ñii ku nekk tey waroon nga dépassé fii ci làmb mhm. muy moom mi di di di Marley lu ne am na exploit yu bëri def ci làmb parce que daan ay champion ci làmb daanaan dëggantaan Ndiaye mooy màgg la waaye ba tey gis nga dafay jafe pour mu percer Sokh tamit peut-être combat ak bu si génnoon nii tey euh, ñoom Reug Reug ñoom Sa Thiès la el di waxal waaye nag yaakaar naa ne examen la ni tey peut-être da ko raté kon bii combat rachat la pour ñoom ñaar ñëpp mm. boobu noonu du mën a en plus derby lay nekk parce que ku ne xam ne Guédiawaye Pikine seen dara du sedd seen dara du sedd te nekk nañu ay xale yoo xamante ne ni bu kar dañuy neex a àndal ci làmb parce que dañuy dañuy jox làmb lépp loo nga ne ni moom la yeeyoo mm-hmm. waaye keroog Serigne Ndiaye numéro 2 ci tournoi war ci tournoi des dix ténors yi def na ci exploit bu rëy nekk fa ak ay nawlem daal di jël tournoi bi. daal di jël tournoi bi mu nekkoon nag tournoi bu neex boo xamante ni tey euh, euh, Teranga Sport ñoo ko initié woon nekk structure bu bees juddu si làmb tëgg tournoi boobu noonu Omar waaye liñ si regretté rek mooy kan rek euh, mobilisation moo xawoon des xam naa ne déwén tamit peut-être buy tànn dina am na nag mbër yu man ñetti ñooñu gis naa daal ñu andi mobilisation boo xamante ni dalay leer ne ñii mbër ñoo tax ñu jóg kon la yaakaar na ne am na solo kon képp ku si bëreeti tamit def les moyens parce que dañ leen fay xaalis kon waroon nañ a def li ma jaayante ba seen fans club bi au moins leen représenté am nuñ leen teewale loolu tamit Omar yaakaar naa da si am solo waaye tamit loolu tamit mbëri ñoo koy dund tamit ak nit ñi mhm. maanaam mbëri nañu oyofaat wàcce waat seen bopp Omar parce que maanaam mbër moom mënoo may su lu dul nit rek kon loolu da si am solo bu baax baax baax baax rawate nag mbër yooyu noonu yëpp dañ doon pene pour am combat te liñ leen defal noonu yaakaar na mën nañ ne combat la rek tournoi ba nag Serigne Ndiaye ko jël Omar yaakaar naa ne ñu bëri tamit moom lañ joxoon favori diggante mag général Malika ba gis nga ko ñoom ñaar ñoo mujj woon final boobu le tournoi. waaye ba mu daanee ba. yaakaar naa ni Malika daanaat na ko final. général Malika daanaat na ko final mu nekk deuxième final bi may fekkee général Malika du ko daan parce que première final bi ma fekkee ren général daan ko kër Farba tamit ñu dajewaat. samedi ñu daje Serigne Ndiaye daan ko dimanche ñu daje général a fayu yaakaar naa ne lamb la rek sport la ñoo mën a mayante xaalis seen biir ku daan sa morom doo doo bu cëram doo ko rendi doo ko yóbbaale sa kër kon yaakaar naa ne nañ respecté wante rek joxante cër te xam ne sport la mënut a weesu cadre sport. mënul weesu cadre sport Boucar Ndour journal bu record tamit dafa des ak Gris Bordeaux di kaddu yi nga xamante ne yëkkati na ko jëmee ko ci Abdou Gueye defetam avenir am ci làmb avenir am ci biir écurie Fass ak doxalinu CNG de lutte bi ndax yaakaar naa ni bari na ay wax kàddu yoo xamante ne ni keroog échangé na ko moom ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk. si je quitte Fass je trahis Mbaye Gueye aimé supporter kon nag yaakaar naa ne ñu ko bëgg Fass lañ ko bëggee rawatina nag Mbaye Gueye bi nga xamante ne nee na moo nekkoon léppam waaye ak lu mën a xew rek nee moom retraite moom ko wax rek wala si xalima ne rek moo di Assane Walu Gueye ci biir journal record waaye li si li ko gën a métti mu koy wax mooy maanaam tey nee na moom li leen intéressé mooy maanaam tey sanction financière yi maanaam CNG moom heure bu làmb jeexee rek li nga njëkk a gis mooy que ne dëgg nañu bor temps nañu bor te jàpp na ne ngir liggéey xaalis CNG nekk foon ngir liggéey xaalis maanaam CNG daf nekkoon ngir gérer làmb régulariser làmb andiwaat jàmb ci làmb andiwaat respect andiwaat norme yi nga xamante ni tey mooy ay règle andiwaat ko ci làmb waaye CNG bu bëggee dem maanaam tey bay nekk machine à sous maanaam luy liggéey xaalis maam luy xam xamante dañ ciy liggéey pour enrichir rek loolu bokk ci li gën a yàq làmb loolu waxi Gris Bordeaux la. waaye nag loolu ñoom ñoo ko mën a saafara de ñoom ténor yi bu ñu toogee boo boole seen boo doole. di dóorandoo di xàccandoo lu ñu bëgg mooy am lu ñu bëggu doom parce que nag ak lu mën a xew ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy les principaux concernés ñoom ñooy yi ñoom bu ñu fi nekkulee CNG bi du liggéey bay dagg wala sax muy teg ay sanctions ba noppi nag bu loolu lépp amee bu kar ñoom ñu xam ne ay professionnel lañu ñu def fi professionnel liñ leen di ŋàññee ñu bañ koo def parce que nag war nañu bañ yenn yi ci làmp yaakaar naa ne ñoom ñoo ko mën a defar ba mu baax. ñoom ñoo ko mën a defar problème bi nag sax Omar mooy que ne tey ñoom ñëpp képp ku si kaas rek xamal ne dañ dagg. képp ko dégg mu kaas rek xamal ne dañ ko dagg parce que ñoom mbër yu mag ñoom fi instant yi nii déggoo si benn ténor bu wax waaye ñiñ dag rek ngay dégg ñuy kaas te buñ paree seen kaas pare nañ si boy dañu fi nekk na seen écrit di daj ay coono di daj ay problème yoo xamante ni te mënoon lañ mën ko def koo si dégg mu wax wala mu kaas rek xamaa ne dañ ko dañ dañ laal ci xaalisam kon yaakaar ndaw ñi nga ndaw ndaw ñi nga tey ñoo nekk seen ginnaaw kon nag problème bi yëpp yëpp yëpp saafara bi moom liñ naan mbooloo mooy doole rek mettre les points sur les sur les koy waxee euh, taxawaat booloo waat xeexandoo ko mu nekk bataay boo xamante ni yaakaar naa ne tey Euh, collectif lay nekk waaye bu fekkee ne ku nekk day xool intérêt rek du sotti. am na solo Boucar Ndour yaakaar naa ne looloo gënoon a fës tey ci xët yi de. leeral yi loolu moo si gënoon a fës Omar di la jaajëfal rek di leen jox rendez ba suba ak jàmm incha allah. daw leen gaaw ndax ku yéex ñàkk. Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na.